li nga xamante ne ni euh, moo di. anda aca bugaan pour man na nga koo baal non non sax nu mu tuddati euh, pas ci kii mais man attitude Ousmane Diagne le fait que nit ñi naan Ousmane Sonko da ko doon dugal wala kii xam nga loolu mooy ñàkk xam-xam <laughs> Ousmane premier ministre la. Hmm. comme ni mu mën a waxee ci agriculture noonu la mën a waxee ci euh, éducation. Hmm. loolu tax sax keroog mu wax ci éducation ba wax ci muuraay yi. yi nga xam ne maanaam moo nekk ci lañ ci war a def ak yooyu loolu moo ko yóbbu mu wax ci justice wax ci justice ak na nga cay waxee parce que en tant que homme politique maanaam ministre ba pare nekk jiite parti mënoo li mu wax loolu la war a wax sañ na interpeller li nga xam ne moo fi nekk loolu loolu politicien bi la loolu premier ministre bi la loolu kiy joxe information léegi nag boo jëlee ministre de la justice am na fi ay ministre de la justice yoo xam ne dañ daan wax ci mbir mi xuus ci dossier yi tey bu doon Malick Sall tey day weesu foofu bu doon Islam Ismaïla Madior Fall wóor na day weesu foofu. moo tax ñu changé leen. Mm-hmm. Ah, léegi moo tax nag loolu laay wax. man mm-hmm. wax ne attitude Ousmane Diagne ki nga changé kon am nga lu baax li nga doon wër am nga ko léegi nag li muy wane mooy Ousmane Sonko wala président Diomaye su naroon caay-caay. du Ous du Ousmane Diagne la ñuy def ministre. Mhm. de la justice. Mhm. boo salué loolu ba pare da ngay xoolaat ñi leen fi teg kon lu tax ñu teg leen fi parce que boo nekkee yore état fas yéene fayantoo fas yéene defi caay-caay doo dem wuti comme ni ko Bougane waxee ne mi ngi salué posture de mais kon tamit war nga mën a salué posture ki ko tànn. Mhm. ki ko tànn yit ki joxoñ ki ko tànn. kooku it posture am war nga ko kii. Mhm. parce que dafa am nit ñi bàyyi tànn li gën. Mhm. Ousmane dañu toog à moment donné ñu taxaw ci Sénégal mu def ay stratégie yu ko indiwaat ci biir. langue langue ci biir jëndee woon nañ ko ba pare de. fekk bay woy mbuus ci wàllu constitution bi. Mhm. mu ne sama jëmm jarut ñuy jalgati constitution. xoolal rapport Ousmane Sonko ak yoon. ak li ko nit ñi di waxal yépp tey nit du gisagul fu mu jalgatee loi. donc respecté woo institution. dama ne nit du ko génne ah. nit du génne fu mu ba pare euh, dafa def droit Ousmane malgré ak avocat yi mu amoon li ñuy xarañ xarañ yëpp ñoom dañ lay wax ne carrément dañuy am fu ñuy yegg sax da ngay gis mu wax la ci loo xam ne loolu moo lay indiwaat. boo xoolee li mu mucc gaay yi ci boppam. xam-xam bi mu am ci wàllu droit. Ah, la jënd i diplôme la la utiliser. waaw léegi nag bu ñu yegsee mu tànn ku mel ni joxoñ ku mel ni joomaay pas tànn sax tànn ko ci biir Pastef laay wax. Mm-hmm. parce que amoon na Abbas Fall bi Marie Sagna El Malick giram Birame Souleye Diop. après ci waa Pastef mu doog a tànn joomaay bi nekk ci kaso bi. lan la ci teg. Mm-hmm. moo ma gën a jub. waaw mm-hmm. ah, léegi Ousmane moom Sonko kii moom Diop président Diomaye moomu. Ousmane sélectionné ay nit. Mm-hmm. mu validé Ousmane Diagne Ousmane Diagne moom moo taxaw démb ci wetu ministre première ministre. Mm-hmm. mu maan teg ki yor wàllu kopparal. Mm-hmm. muy euh, ministre de teg ko dégg naa Bougane foofu laa koy tuddee mënoon naa ko bañ tudd mu ne Cheikh Diba sax dañ ko woo ci nii parce mu bañ a ñëw nangam te alors que Bougane yow da ngay fen te xam nga ne micro bi te xam nga ne dangay ngay fen mm-hmm. mala boo xamul même boo xamul ne da ngay fen sax cuune nga parce que li nga wax démb ay fen la bala nga ne naam ne fa di ba ma nga ca tugal ba nga États-Unis ànd ak président Diomaye il n'est voilà te pourtant yow nee nga am nga xam-xam nee nga yow da tontu nii amoon nga affaire yu bu yàgg kon yow war nga lijjanti ki lay informé bu fekkee ne dañ la ko jox manque de sérieux déjà mooy wane ne matoo li nga doon. parce que li mu wax démb moom moo utiliser kàddu fen. léegi nag entre ñim ne dañuy fen ak moom am na ku ciy fen te moom ay fenam leer na. parce que li mu wax ne Cheikh Diba nangam nangam loolu du dëgg. léegi nag mënoon na koo tëj. non bëgg fenul ci de daa fen ba gëm ay fenam. waaw mooy. te loolu bi kii doon wax. sëñ dem si dem si yàlla. jaaji taal doon na ko mm. wax. Mm. Eh, nañ nit ñi am na ci nit ñi ñoo xam dañuy fen ba gëm seeni fen. di ko wax ak ak assurance. Mm. xam nga taxaw xujju affaire yi braqué la xam nga moom lu ko boole ci affaire yi mooy xaalis. Mm-hmm. baadoola bu bu bu bu tekki loolu la xam nga man damay faral di wax. est-ce que journaliste yi génnee nañ doon origine mu jógee. bon xam nga mais li ci am solo mooy. <laughs> ñun mooy baadoola <laughs> jëwriñ xam nga baadoola nit ñi dañuy wax baadoola yi. maanaam boo gisee le terme baadoo la li ko indi ci vocabulaire ba nit ñi di ko waxee nii li ko taxoon a jóg mooy suñ daan tànni njiit dañuy xool ba mu set ci jukkoy baadoo la baadoo la tekkiwut ki amut maanaam dañ koy tànn ba mu set ci jikkoy baadoo la ñu teg ko fa ak ñu muy àndal voilà maanaam mhm. jikko yi nga xam ne amu ci dara ci jikko yi wàññeeku yi mhm. mooy du nekk tëll ma rajax du nekk mhm. soskat du nekk fenkat du nekk li du nekk li ñu doog koo fal suñ la daan fal ndomba gi nag ñu mm-hmm. daje ci élite bi foofu baadoo la fa mm-hmm. léegi kon expression mooy dem ba baat bi def mutation ñu koy jox coloration ki yorut wala yooyu mais tekkiwul loolu mm-hmm. baadoo la moom lu mu fekk ci yow da koy yokk bu fekkee maanaam xaalis xaalis lay wax ak xam-xam fekk ci yow da koy yokk la bu la fekkee ngay nit ku baax ngay gën a baax sa alal du la moom yaa koy moom sa yaram du la moom yaa koy moom mhm. sa bakkan du la moom yaa koy moom mhm. mais bu la fekkee ci xam-xamit bu la fekkee ci baax da koy yokk mhm. mais xam-xamit bu la fekkee ci ci caay mais loolu moo yàq àdduna bi caay gi am ci àdduna bi yëpp fi ñu yegg si yëpp xam nga ne ñiy defar xam-xamu bomb mën a defar mburu mais loolu dalay wóor ne bomb day rey te mburu day dundal doctor yi seen science bi ñu teg day day day faj mais mën naa rey kon loolu mooy rôle moo tax baadoo la nga doon président di baadoo la teewul nga doon baadoo la nga doon ab sëriñ baadoo la teewul nga baadoo la baadoo la baadoo la rek lay mas doon te du jub gàcce nag te yeggu ci jub sa gàcce te yeggoo ci mooy nga ne suba damay wax parce que ñi wax nañ ne dix heures la ñuy wax nga ne après midi ñee bëtal ndax la joolaa nga ne damay wax yegg ci sax journaliste fa nekk nga yàkkamti yónnee leen xam nga bis mu jël si leen pour da nga bëgg a wax léegi nag nga wax taxaw ne ñii seex di ba nangam nangam say fen leer di gàcca moo tax wolof naan baal wala du jub gàccaam te yegg ci maanaam buggaan bu doon gar mi démb gi du ko dal ba pare yéene néeg la sa noon gis nga intention de faire mal baaxul man nga sax def di jubbanti ba juum maanaam tey ngay dem yu nekk journaliste investigation wala ngay nit koo xam ne activiste mais li ngay def yaa ngi koy defee bon fois nga juum loolu dara newu ci dafa am benn wàll yu boo xam ne dafa xaw am xam-xam kenn du ko tooñ mu ami taali bi am waajoo xam ne kii lay dund sariya rek lay dund am na yu mënta yu wàll yu bi def c'est inexplicable moom mu koy dal te wàll yu bi ñi ko xam ci dëkk bi yëpp xam nañ ne ku ko tooñ al mais waajaa ngi koy tooñ te du alko maanaam waajaa ngi wax loo xam ne du dëgg mais li muy wax dëgg la maanaam le fait que mi ngi koy wax mais demewut noonu maanaam dafa trompé wu de bonne foi bi ñëwee ci wàll yi bu wax ko mu ne ko xool naa mbiram waaye amul dara loo xam ne mi ngi ma koy xase wala mi ngi ma koy wax te fekk na daf ko wax pour ŋaañ maanaam daf ko wax pour dëgg looloo tax mënaluma ko dara vous fi nga fi fi may fi may waxee maanaam juumte amut yenn saa yi wa affaire tesu tasawuf yenn saa yi nit ki def loo xam ne inexplicable. mooy conflit bi entre ah, noonu lay demee bari na ñooy waxal fii naan leen sëriñ nangam dana ko kii comme ñi ngay wax ay salafiste ci nii. am na ci ñoo xam ne. Ah. dara du leen ci jot parce que dañoo jàpp en même conscience ne nii la demee. mais am na ci ñu ñu ñu jubadi ci ñoom ñoo xam ne. Mm-hmm. parce que li ñuy def yëpp bañ moo tax ñu koy def. Mm-hmm. Mm-hmm. maanaam pour wan la ne maanaam moo tax li nga doon wax ci opposant mhm. dafa bokk ci liy defar dëkk bi mhm. opposant bu baax mhm. journaliste yu baax bu ko dëkk amee Sidi Lamine waxoon na ko nee na ñu nee ñett mooy pa euh, dëkk bu am président ñàkk président wala ñàkk euh, ensemble wala ñàkk presse ñu ne benn moo ci ñàkk Sidi Lamine nee na suñu yeggee foofu nee na nag bu mu am président parce que dëkk mën na dox sans mu am président mu am président mais mënul dox saa mu am ensemble bu baax yéen a ngi dégg. Mhm. mën na dox sans mu am presse bu baax. Mhm. te mën naa dox sans mu am président. Mhm. parce que li ñuy doxal mooy bu ñu ko dee contrôler xam ko teg ko ci yoon loolu mooy dëgg. Belgique dal na leen Belgique toog nañ fi temps bu yàgg amuñ président. jeex gis nga loolu yëpp dafa am solo. ci dëkk bi. loo xam ne dafa kii loolu nag mu interpellé kenn ku ci nekk moment bi euh, mën nga ne forme discours di kii démb bi form bi muy lu fekk mu fekkante ak bateau Joola. nekkante daanaka ñuy jàpp bésu élection yi man nga teg ne forme boobu mu nekk dafa favorable le en place foofu nag la ñuy waxee politique l'art de bien gérer l'affaire de la cité. Mm. am na loo yoroon mënoon nga ko wax yaa deux mois trois mois ci ginnaaw parce que bul fàtte ne FMI ñëwoon na boo bëggoon ñu lebal la nga ne leen xaar leen ba ma paree ci samay chiffres wax naa la ko sànq bi ngay dem di lebee bi la FMI di di di gàgganti bokk na ci mm. la fait que nga dem lépp. loo xam ne taux bi yegg na set sept virgule nangam te alors que ñu ngi ko lebee woon mais réponse bi mu ngi doog a ñëw. d'accord mënut a ñàkk a leb mais bëggut a leb FMI parce que ci base yi muy lebe baaxut te chiffre yi fen la moo tax man foofu sànq may wax ne FMI nu doit des explications même tey bul boo xoolee bu baax ñiñ daan yabal fii na la wóor ne danañ leen woow ca CA ba. Hmm. foofu danañ leen fa wow conseil d'administration FMI. Mm-hmm. ñooñu danañ wax ak ñoom ne leen lii bi muy am Sénégal lu tax ngeen validé ko. xanaa ngeen naan dem na ñu jox leen ay. ñu jox rek est que nit ki da war a ñëw rek. ñu jox la nii rek nii rek nga daal di dem. moo tax sànq moo xam ne seen responsabilité ñi ngi ci. am na ci hmm. loolu bi ma koy wax man. loolu moo tax ma koy wax. am na ci de parce que bu ci bu ci bu ci bu lan moo taxoon Abdoulaye Wade ñi daan daan am ak ñoom problème. Hmm. ka Alex Segura lu taxoon ñu dem ba Wade di ko euh, ger waa PDS di ko tuddee nangam cadeau wala nangam nangam. parce que mm-hmm. booba ñoom mayuñu woon kee dara te dañoo amoon amul lenn lu ñu lay may. léegi nag moom ñii xam nañ ne FMI keneen ak keneen du leen may dara moo tax lu leer lañ war a def defal askan wi mais bu kenn tiit faatu. Sénégal mm-hmm. dafa am ay ressources ay ballu minaare. Mm-hmm. maanaam ressources yu ñu man a ñett la ci Qatar am wala ñaar pétrole. ak gaz. te développé na dëkkam ba nga xam ne Qatar yi bi gënoon a du temps de de ay 2016 2017 euh, kii boobu day laal weer lu mu néew néew cinq millions 800. Mm-hmm. Qatar yi doomu Qatar nag laa wax mm. keneen ku fa nekk di nangam maam Qatar doomu Qatar yi bariwuñu. Mm-hmm. mais ka fa gën a pauvre loolu lay laal xam nga lu leen ko yóbbu la. Mm-hmm. mooy gérer seen ay. Euh, ressources teg ko fi ñu ko war a teg ba am xaalis. amuñu bombe atomique de mais kenn yabu leen. ñoo fi organiser coupe du monde. kenn mënu ci dara yi ñuy ñëw naan ay dañuy def lii mu ne leen seen yi téye leen ko seen dëkk. Mhm. d'accord bu leen ñu fonto loolu nag boo ko bëggee yegg. Mhm. mooy da ngay am fulla Afrique gi nga xam ne tey. puissance de l'économie kenn respecté wu ko ba amul toogu ci Nations Unies xam nga lu tax. Mhm. parce que dafa ndóol. dafa dafa ndóol ci yor nii nangam ci liquide. mais ci biir su solam mhm. ma nga faak bauxite bu ñëpp soxla ma nga faak zircon bu ñëpp soxla kon ndooluñu dañoo ndooloo bu ñu taxawee nag langage de di ko def am fula léegi tey ñu yóbbu Nations Unies ñu am fa toog permanent nag toog ci or ba pare xiif di la rey waaw di yàlla ah. <laughs> xeeru or bi mu toog sax xeeru hmm. or waxuma or bi surtout yi maam xeer bi nga toog sax ndeke or la mais nag nga koo xamul koo xamul ko mhm. voilà effectivement dañuy ñëw ci eh, leneen mu di eh, la manifestation gars atel naa soo wàccee fa laa jël tey. lamp lamp gàncax